al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillah wala aaqibatu lilmuttaqin wala udwana ila ala zalimin wasalaatu wasalaamu ala asraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain maa ngi tàmbali samay kàddu ci tur suñu borom di ko sant di julli di sëlmal ci ab yonantam ak ñoñom ak i saxaabaam mboolem seen tey nag ñu am mbégte ginnaaw bañ nuyoo waa daar ji yëpp nuyoo islaam te mooy aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu fas ñëw ak yéen Euh, ci tey ci juróom-ñetteelu fan bi ci hadis bii nga xam ne mooy asiyaamu junna nga xam ne ñëw na ci ay version yu bari asiyaamu junnatun ka junnati ahadikum min alqitaali ñëw na ci benn riwaaya asiyaamu junnatun min annaar ka junnati ahadikum min alqitaal ñëw na asiyaamu junnatun wa xisnun xasinun min annaar ñëw na ci assiyaamu junnatun yastajunnu biha al abdu min annaar wa huwa lii wa ana ajzi bihi ñëw na ci benn riwaaya assawmu junnatun maalam yaxriqha ñëw na ci ba tey assiyaamu junnatun wa huwa xisnun min xusunil mumin wa kullu amalin li saahibihi wa siyaamu lii wa ana ajzi bihi kon ñëw na ci riwaaya yu bare bare kon xadis boobu lañuy jël tey te mooy assiyaamu junna koor fàkk la xam ngeen ne ñi am xel ñi xelu ñi nga xam ne dañoo intelligent ñooña seen objectif seen bëgg-bëgg mooy pexe te alfawzu googu mooy safaanu alxusraanu perte te nag gu gën a màgge amul ak pexe gu gën a màgge mucc ci sawara suñ boroom wax na ko faman suxsiya anin naari wa udxilal janna wa udxilal jannata faqad faasa suratu ali imran aya cent quatre cinq ku yàlla soril sawara dugal la ajina texe na ba tey mu waxaat ne xul ina alxaasirina alladina xasiru anfusahum wa ahlihim yowma alqiyamati ala dalika huwa alxusraan almubin ñi perte daal mooy ñi perte seen bopp ak seen ñooñ yowmal xiyama te loolu mooy perte di bér surtout sumar aaya fukk ak juróom kon koor ak jaamu yàlla goo xam ne nii suñ borom da koo def mu nekk wiqaaya mu nekk pakk mu nekk kaaraange contre sawara wali sawara da nga dem ci saxiix buxaari yu ak saxiix muslim nga fekk fa xadis boo xam ne nii mooy wéral lii ma wax xadis boobu abi saïd alxadri yi abi saïd alxudri yi moo ko wax mu ne damaa dégg yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne man saama yowman fi sabilillah baada allahu wajhahu anin naari sabina xarifan ku woor benn bis ngir yàlla yàlla dana soreel sa jëmm ak sawara juróom-ñaar fukki at ahmad ak nisaa ak ibnu maaja ñoom itam nett lañ jële ci an abi hurayra an ahmad ak nisaayu ak ibnu maaja ñoom ñëpp dañoo solo jële ci an abi hurayrata mu jële ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ku woor benn bis ci yoonu yàlla yàlla soril jëmbam wala kanamam ci bis ba mu woor juróom-ñaar fukki xarit te juróom-ñaar fukki nawet muy juróom-ñaar fukki at kon koor day dox diggante nit ki pàkk la ci diggante nit ki ak sawara ak firmisi yu ak tabaraani ñoom itam nekk nañ hadis boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci abi umamata al bahili radiallahu anhu mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko woor benn bis ci yoonu yàlla ngir jëmm yàlla sun borom soreel diggante ak sawara def ci kàmb goo xam ne day dox digganteem ak sawara kàmb goo xam ne day soree ne diggante asamaan ak suuf at-Tabaraani nett na kem lu mel ni jëlee ko ci an Abi Darda ba tey at-Tabaraani nett na jëlee ci Omar ibnu Habasata mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa nee na benn bis ngir yàlla wala ci yoonu yàlla yàlla soreel diggam ak sawara doxub téeméeri at doxub seetal xaddis yépp dafay tegtale ne koor dafay soril nit ki sawara koor day tax nit ki bokk ca way texe ya moo tax mu ne astawmu junna te nag lii mooy firi yi ma wax léegi nii mooy firi hadis yi yont bi sallallahu na wax muy ay xaalis yu bari te mooy asiyaamu junna koor kat pàkka la koor kat kaaraange la jël nañ ci ahmad ak nasaayu ak ibnu maaja ñu jële ci usman ibnu abil haaz mu ne radiyallahu anhu mu ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne koor daal pakk la koor pakk la ñi nga xamee ni yéen ñii kenn ko ne day am mbubb koŋ boo xam koy aar ci bu bu nekkee guerre am na benn hadiis dafa wax ne koor pakk la ci sawara ñi nga xamee ne yéen ñii kenn day am mbubb pakk moo xam ne mooy mbubb koŋ yooyu nga xam ne moom ngeen di sol bu ngeen di xeex ngir buñ la jamee mu bañ a dugg ba tey jël nañ ci ahmad mu jële ci abi xurayra ahmad mu jële ci an abi xurayrata radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa nee na koorkat la ba noppi nag tata tata la ju sangawu jël nañ ci jaabir radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sun borom nee na koorkat pakka jaam bi da ciy musu da ci da ciy da ci sawara man koor nag man maa ko moom man dong man maa koy fayal sama bopp jël nañ ci at-Tabaraani ci abi umamata radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koor kat pakka la ju segawu ci tafay jullit ñi bépp jëf ju nit jëf borom moo ko moom waaye koor moom mën naa ko moom te mën naa koy fayal sama bopp kon gis nga xadis bii ñëw na ci riwaay yu bari waaye di wane koor kat pakk la aljunatu mooy alwiqaayatu alwiqaayatu wal himayatu li lay fekk li lay aar mooy li nga xamee ne nit ki dafay protéger woo di ci aar woo moo tax ab pirs ñu ñu ko tuddee mi janam mbubb yooyu ñuy sol ñu di ko tuddee euh, mbubu koŋ macha allah bu dee ci jamono ji am na ay gilet yi gars yi di sol léeg-léeg ko seetaan film rek ko gis gilet yoo xam ne ni day tax bu ñu dooree bal fatal du dugg mbubu koŋ yooyu nag da koy sol di ci aaro buñ la jamee xeej wala buñ la dooree jaasi ak yu noonu moom moo tax mu ne ka junnati ahadikum min alxitaali kon koor day aar nit ki ci sawara ak lul moom jël nañ ci abdurasaq mu jële ci ibnu masod mu ne yonte bi nee koor daal pakk la nekk nga xamee ne da ngeen seen mbubb kon yooyu ngeen sol ci xeex kon ibnu abdul bar nee aljunna mooy alwiqaayatu wa sitru an naar maanaam protège la saatir la luy dox sa digganteeg sa war lii nag yaakaar naa doy na sëkk ngëneel koor bu koor amutoon benn ngëneel bu dul day dox diggante nit ki ak sawara te ku mucc sawara dugg nga àjjana te ku dugg àjjana am nga texe gu mag bu koor amutoon benn njariñ bu dul lool rek doy na sëkk waaye am na ñu firee as mu junna baatub junna jooju am na ñu ko firee ne saatir la luy luy dox diggante nit ki ak bakkaar la waaye am na ñoo tamit ñaar yëpp la koor day dox diggante nit ki ak def bakkaar ak def li yàlla tere boo defee li yàlla boo muccee nag yàlla tere te nekk ci li yàlla digle ah ba tey da nga mucc ci sawara ndax bu la yàlla dimbalee ba nga mucc ci bakkaar yi ah yàlla musul la nga ci sawara ibnul arabi radiyallahu anhu nee na li tax koor nekk pakk ci sawara ndax kat li annahu imsaakun ani saxawaati te wan naaru mahfufatun bi saxawaat ni ko leen di waxee xuffatil janatu bil makaarih wa xuffatil janatu bi saxawaati koor kat li tax mu mën a musal sawara mooy koor day dox sa diggante bànneex yi day tax nga téye sa sa njàmbur sa bopp ci bànneex yi tax kenn ku ne xam ne sawara kat bànneex ya topp bànneex ya moo cay dugal nit ibnu xajar ginnaaw bi mu toxalee wax ibnu ibnu yi ba noppi dafa wax ne li am te am li wóor liy dëgg mooy nit ki su fegoo ci àddina gi wëlis bànneexam nit ki daal mu fexee nekkam fii ci àddina mu fexe ba toppul bànneexam ñàkk topp bànneexam googu mooy nekk ëllëg saatiram mooy nekk ëllëg protèsam ëllëg alaxira ca sawara loolu moom wax ju wér la yoo xam ne xel mën na koo nangu lii ma wax nag kum neex nga dem xool fathul baari bu ibnu xajar al asqalaani kon mi ngi noonu ba tey lii dëgëral sax loolu ne koor satir la wiqaay la prophète la ci zawara mooy li yonent bi sallallahu alayhi wax ne yastajinnu biha al abdu min an naari na koor daal pakka la nit ki da ciy aarowu ci sawara maanaa koor inaaya la wiqaaya la jaam bi di ci aaroo walif sawara ni ki nga xam ne mbubb koŋ boobu nga xam ne wala gilet protège boobu nga xam ne nit ki da koy sol bu nekkee ci xeex bala fetal lu mën a dugg ci moom buñ ko dóoree jaax it du dugg kon koor tasa la ci tasay ci gëm yàlla nga xam ne ci lay tasawoo walif sawara bi nga xamee ne koor nag day fegal nit ki ci woor ay mooy yàlla ci àddina ah moom itam dana yàlla kon bu alaxira nag mu nekk fakkam ci sawara nag waaw koor gi bu nekk bu doxul diggante nit ki ak bu doxul diggante nit ki ak mooy yàlla fii ci àddina ah du mën a nekk ëllëg nag pàkkam pàkkam alaaxaraa ci sawara moo tax moo tax mu ngi noonu kon kon koor mi ngi noonu yell na ci ki woor mu ñoŋal koram googu ci lépp lu koy yàq wala lépp luy wàññi tiyaam jooju moo tax dañuy gis ci dañuy gis ci siyaaqu addis bi nga xam ne Maalik netti na ko ak ab sayxaan yi ñu jëlee ko ci an abi Hurayra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kenn ci yéen bu wooree bu mu réeree bu mu caaxaan su nit bëggee xeex ak moom wala ku la moom na wax ne indi saayimun inni saayimun ak li na saa yu nekk li jële ko ci Aïsa radiyallahu anha mu ne yonent bi salafa nee na koor daal pakka la ci sawara ku xëy wóor nag bis boobu na fexe ba mu ci doon tuune bu fekkee nit daa ñëw sax ànd ak ignorance am ci moom Euh, di ko ŋàññi di ko saaga na ko wax ne ko inni saymun na ko wax ne ko inni saymun kon gis nga kon koor mi ngi noonu koor dafay fekk day fegal nit ki ci sawara koor day fekk nit ki day dox diggante nit ki ak bàkkaar ak mooy yàlla kon xadis bi ñu ngi noonu asiyaamu junna ay wiqaayatun fi dunia wal axira koor daal pakka la day fege ci àddina dox diggante nit ki ak bàkkaar ci alaxira mu dox diggante nit ki ak sawara kon day fegal ki gëm ci àddina moom koor mu tàbbi ci bànneex yi ak mooy yàlla yi di ko fegal alaxira mbugal kon moom koor tatala ju sangewu alaxira ci sawara ci sawara kon gis nga jël nañ ci abi xurayra radiyallahu anhu mu ne yent bi nee na koor pakka la nag bu mu caaxaan bu mu réere bu amee koy xuloog moom wala di ko saaga na ko wax na ko man dama woor damaa woor loolu buxaari yu nekk na ko ba tey jël nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne euh, koor pàkk la ba noppi euh, di tasaaju sangaw ci sawara hadis boobu ahmad an na ko al albani moom itam nee na hadisun xasan la jële nañ ci Usmaan ibnu abil Haas radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu na yonent alayhi wa sallam nee na koorkat la ci sawara loolu ahmad nas na ko ak nisaayu moo tam albani def na ko muy sax saxiix li ñuy déggee si xadis bi nag mooy koor koor kat daa mel ni mbubb koŋ la mbubb koŋ moo mi nga xamee ni nit ki da koy sol bu nekkee ci xeex ba bu ñu ko jamee jaasi du dugg wala nga ne euh, gilet la gilet protège yi nga xam ne boo ko solee bu ñu la tiiree bala fetal du dugg nga xam ne léegi léegi président yi dañ koy sol léeg-léegi garde corps yi dañu koy sol nga xam ne nag kon noonu pro jullit professeur boobu mel koor noonu la mel di fegal aji woor ji bàkkaar ci àdduna di ko fegal sawara ëllëg li nga xamee ne mëbb koog moomu noonu lay fegalee ki nekk ci xeex ba bu ñu ko coree du dugg bu ñu ko jamee xeej du dugg noonu mu koy aaree ci dee noonu la koor di aaree nit ki ci sawara kon yooyu yëpp loolu lay tegtale kon liñ mën a déggee ci xadis bi mooy koorkat euh, kaaraange la day fege euh, ci àddina ak alaxira bu dee ci àddina day dox diggante nit ki ak bàkkaar bu dee ci alaxira mu dox diggante mag sawara da gis sax ne koor kon day entraîné nit ki ci lu baax di ko fegal mbugal ba tey bokk na ci xikam bi tax euh, ñu ñu ñu ñu ñu santaane koor mooy nit ki mën a am ragal yàlla yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala min qablikum laallakum tattaxuna ak mooy jëfe ndigal bàyyi tere kon koor googu bu nit ki amee nag ragal yàlla jëfe ndigal yi bàyyi tere yi ah nit ki mi ngi ci lu baax te moytu na ko nag bàkkaar subaar day day moytu na ko sawara day mujj ci sawara kon koor mi ngi noonu kon koor day aar nit ki ba du tàbbi ci kaay-kaay du tàbbi ci euh, bàkkaar bu ko defee nag nit ki day mujj di wax lu baax di jëf lu baax dootul wax lu dul lu baax dootul jëf lu dul lu baax suuf ci réalisé lii nag ah day dañuy xam ne loolu mooy objectif koor defar nit ki ba nit ki lu baax rek di génn ci moom lu yàlla digle mu def mu def ko lu yàlla tere mu bàyyi ko loolu ci ngay déggee li yonent wax ne ku bàyyiwul wax ju ñaaw ak jëf ju ñaaw yàlla soxlu bàyyi lekkam ak naanam kon koor tarbiyatu nafsi la day yar bakkanu doomu aadama gi ba tey euh, day def euh, jullit bi lu baax rek di jóge ci moom di jëm ci nit ñi muy baagante ci jëf yu baax yi nga xam ne loolu day feeñ ci comportement am day feeñ ci comportement aji gëm gi kon koor gi yàlla na mu dëgg dëgg bëgg dëgg dëgg mooy li ñuy wax dëgg dëgg koor nga xam ne day feeñ ci comportement doomu aadama bi day feeñ ci jëflante doomu aadama bi ak boroomam ak i moroomam du tooñ boroomam du tooñ mu aar ko ci sawara aar ko ci def bàkkaar nga xam ne dëgg-dëgg koor bokkut ak koor gi ñu miin nii nga xam ne daanaka daa daa dem ba mujj gi doon ay aada rek doon rek ay sakkaliyaat nga xam ne mel ne bu doon nit a amul ruu euh, amul lu muy jeexatal ci bakkanu doomu aadama amul lu muy jeexatal ci société bi koor gi ñu bëgg mooy koor goo xam ne day am jeexatal ci bakkan yi am jeexatal ci société société bi nga xam ne day feeñ ci comportement doomu aadama bi waaye du bàyyi lekk rek ak naan dong euh, bëccëg rek du loolu rek de waaye dañoo bëgg bàyyi lekk gi ak naan gi euh, mu feeñ ci cër yëpp ba cër yëpp bàyyi lu bon ni biir bàyyi lekk ak naan kon gis nga koor mu ngi noonu euh, lu am solo la kon gis nga koor mi ngi noonu tasala yoo xam ne ku ci dugg da mucc ci bànneex yi da ngay mucc tamit ci euh, sawara moo tax sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal ki toll ci góor gi mat di soxla boppam te amagul soxna euh, mu wut soxna góor gi toll ci ut soxna di yëpp boppam mu wut soxna su fekkee ne amul lu mu wutee soxna nag ba takkee soxna muy woor bu ko defee koor googu nag mooy mooy nekk protège diggam ak bànneexam boobu ba du agressé du siif jigéen kon gis nga junna la euh, maanaam tasa euh, ci bànneex yi la tasa ci bànneex kon daal koor tasa ci sawara tasa la ni jaam ji def ci aaroo walif sawara yonent bi nee na ci hadis boo xam ne muttafaqun alayhi la ku woor benn bis rek ngir yàlla yàlla soril sa digganteeg sawara juróom-ñaar fukki nawet kon gis ngeen as sawmu junnatun kon mi ngi noonu kon koor day dox diggante nit ki ak lu bon day dox diggante nit ki ak ki ak euh, bàkkaar te nit ki bu deful bàkkaar euh, toppul bànneexam sunu borom musal ko ëllëg ci àllaaxaraa kon mën nañoo yem fii rek tey ci xadis bi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu